làmb ji ñoom sport de chez la national la nañu dimbali rek dimbali mbër yi waaw ñu bëri ñu seet ñu leen mën a arrangé ba ñu bëri war rek xam nga làmb ji moom promoteur yi sonn nañu mbër yi sonn nañu bis bu ne nga dégg ñu wax ko ci tele bi loolu du man maa ko wax ci tele bi laa ko gis dañ leen dimbali rek ñu bëree xam nga ñu ubbiwaat làmb ji daal. vraiment dafa métti quoi parce que suba ngoon nga ne si sport bi entraîné matinal soir xam nga. ba pare toog président bi ne làmb amul loolu dafa métti parce que loolu mën na yàq jeunes yu bëri quoi mbëri mën nañ fa jaar yàqu en plus mën nga am sa doole liggéeyoo nga dem ci mbedd bi tamit li jënd ji ko foofu muy soññ daal mu tijji ko quoi ñu delluwaat fu ñu nekkoon si suñu activité lépp parce que san entraînement moom métti na trop mais entraînement presque amul njëriñ quoi parce que di nga entraîné te du génn tamit xam nga loolu tamit métti na wax dëgg fa métti na de bu ñu soññ daal ñu delluwaat suñu activité yi ko comme fu bari yaa ngi dox affaire yooyu noonu nañ bàyyi lamb ji mu dox kom nu mu doon doxee quoi xam nga ndax c'est que lamb da di cosaan quoi te fa la gars yi jëlee li ñu amee quoi presque mais bañ sañoon tamit ñu bàyyi ko quoi comme yaa ma gën a am mu dem waaw comme ni fu yi daal di demee. man mi am na ci ay xarit yu bëri ñoo xam ne import lañu mais ñu ngi may wax ne lii moom dañu découragé boo moy tuyee mën nañ fi jaar bàyyi lamb ndax da ngay sport bu son te maanaam doo doo doo doo gis foo ko foo ko wone xam nga loolu tamit am neexul di internet toujours di dem salle di fay ah te doo te doo ko doo ko def ci dara loolu tamit am bu yegee da ngay découragé. ah instant yi mbir bu si amul liggéey moom presque da woyee di rek bi la ñun ñi xam ne am nañ sens sax ñu ngi fi taxale ñoo ci oto yi di raxas di laver fii quoi mais nekkul ñëpp bokk yem am na ñoo xam ne amuñu amuñu liggéey mbapat lañ yaakaar dem àll ba bëre ji gañe nag gañe xaalis jëriñ seen bopp jëriñ seen yooyu noonu. instant bi moom vraiment lamb ji daal président war nañu mën a jàpp ubbi ko parce que entraîné ba sonn bëree war na bi neexul quoi. mbër yi kay dañuy entraîné ba bëgg a dee koo ci gis mu ngi mel ni mbaamu noor mooy mooy loolu doom am fu mu ko liggéeye daal waaw loolooy problème bi. to làmb ji combat mënul am euh, mbapat mënul am compétition yi taxaw na euh, daf vraiment dafa nekk loo xam ne dafa gàllankoor làmb ji tëj làmb ji daal ñuy ñaan yàlla daal président bi nga xam ne bëgg na lamb dem ba tabaxal ñu lu toll ni stade de lamb euh, bugg nañ ñu mu jàppale ñu ñun ñëpp ñu xool daal nu ñu liggéeyee lamb ji pour mu mën a taxawaat ndax mbër yi mën a liggéey ndax dañoo yaakaar ci mbër yi quoi waaw mbër yi dañ leen a yaakaar vraiment. affaire bi ñu mu demee ñoom mënatuñoo bëre te ci mbappat yi birale yi compétition yi ci lañ doon amee lu seen dund comprendre nga li ma la wax. esa bi ne mënuñoo dem fenn ndax ñoom mënuñu amuñu ndimal pour am combat stade.